voilà loolu moom mooy troisième quart de finale bi diggante ordinateur ak Yankaw. troisième quart de finale ordinateur ak Yankaw. ordinateur à Yankaw à gauche. ndeysaan ngeen Idi. nee na ñoom ñaar Iba Mar daje woon quart mu am coow ñu ngi tasewaat terrain gaal gi quart tey la coow li di fay wala mu jaar fi di tàkk ba faw Yankaw à gauche ordinateur à droite ngeen boog ngeen bul xonk génn seen diggante. troisième quart ngemboo ngemb bu bleu yankaaw sa tànk boobu nga jiital ordinateur danaan ko coppet dalay takk loolu baaxul dalay takk dalay takk dalay takk na la jeex na ordinateur en demi-finale yankaaw